xalaan bikum sénégalais yi fa ñoo génn ak mbooloo mu bari ngir wuy ji xooteet njiiti réew mi Basiru Jomaay Fay ci bëccëgu set setal suñu réew mi Le Soleil yéenekaay na samedi bii weesu sénégalais yi fa ñoo wan njiiti réew mi na ko fa ñoo bëgg suñu réew mi set wecc moo tax fa ñoo génn ànd ak yow ci li ni mel xam na diiwaan yoo xam ne sax soldaar sa armée ba ñoo jiite yëf ya président Jomaay Fay na leen yéen sénégalais yi faa xam mbégte ci génn bi ngeen génn wuy si ma waaye ngeen xam ne gis nga wàllu set setal ñëpp la si du ne waaye fa caa yokk na li ngeen def ni rafet na génn ngeen set setal ngeen waaye faa bëgg ngeen wëyal ko bu mu nekk benn fan rek déedéet bés bi yéen dëggal ko na njiit mi kay fa sàkku ci sénégalais yi ku nekk na jël set setal def ko muy yëfam yéen a kaay bi bésu set setal bi fa xam ay ministre yoo xam ne fañ leen a yónni ci ay diiwaan ñu jiite fa set setal ga 24 heures yéen a ne bas kay fa jël dogal bëggatul gis benn mbalit le soleil yéen a kaay mel ni ku naan bëccëgu set setal bii kay président fa cee xam leen di waxal nga ay set setal ak faa ngeen xam ne ay tàngal ceeb la de maanaam dugguleet yàgg na fee xam ci jamono Macky Sall njiitu jëwri ni Ousmane moom fa porox ndoll ngir xam ne waxuma la set setal réew mi sax ci ay mbalit waaye fañ koy setal ci yorin wu sell taxawal réew mi bu mu dëgër man ko waxee ca yor yor yéen a kaay exclusif yéen a kaay na ko fa caa yokk moom Ousmane Sonko ne ñi xam ne fa tabax foo xam ne waruñu faa tabax ci xanam gu jaarut yoon loolu moom fay dakk les si ko yéen a moom koy fa xett boobaale set setal ba pare waxaale soxlaa moom njiitu jëwri ni ndax ca le quotidien fa ne fa ñuy bale réew kan moo def lan ak lan suñu xamee ki def nag responsabilité yi moom fañ koy situé te ñi nga xam ne fa ñoo def sàcc alalu réew mi def naka su dul noona fa ñuy fay bor bi amul sax xaarama dem te ñëw ñu ne dee tawaay Ousmane Sonko njiiti jëwriñ yi fa waxit sénégalais yi na leen seen xel na dal gis nga fitna ji fi amoon ci weeru juin 2023 ba sénégalais yu bëri ñu rey leen fi mooy ñaxtu yi fi amoon faa bëgg ngeen xam ne yëf yi fañ koy leeral yoon dana def liggéeyam ñu xam kan moo rey ak kan moo santaane ñu teg leen ko colonel Sankun Fati na ko Ousmane Sonko yow laay waxal loolu nga wax ne moom nga bëgg ngir leeral ñu rey ci réew mi yëpp fitna ji dëgg la lu la rafet na te man d'accord naa ci de saay bañ nga fàttee ne am na loi amnistie boo xam ne fañ ko wote ba pare kàddoom yaa bés bi yéene kaay yéene kaay bi di source a mel ni ku ko njiiti jëwriñ Ousmane Sonko yaag président Diomaye seen bale gu ngeen nekkee ci réew mi ngir setal ak ñi def naka su dul noona faa bëgg ngeen dem ci aéroport Blaise Diagne foofu bëri na lu fa war bale setal ko ndax doxalin bu garaaw moo fa xam tal lu ëpp fanweeri directeur exécutif salaire yañ leen di fay weer kuñ ko wax sax nga jàpp sa gémmiñ xaay ba fa bëri ba jéggi dayoo ak yeneen chef de service yu baree bari yoo xam ne ña nga fa ñu leen di fay xaay bu du xaaj du jeex salaire bu ëpp ak ay essence ak fañ leen a may oto yoo xam ne jege na fanweeri million liggéeykat ya nekk ay bay dee fi mu toll ni fa ñoo bëri ba jéggi dayoo loolu fañ ko war a lijjanti laneen li ñu war a lijjanti ci réew mi mooy xëyu nga xam ne secteur privé bi fañ koy jànkuwanteel njiital MEDES ma ngay joxe a jaar ba yu mag yi am ci ajug màkkaren gi ci ay ujaaj yoo xam ne fi mu toll nii ña dund loo xam ne moo raw mburu ci taxal te kenn yóbbeewul luñ ko lu may air Sénégal turbine yéen a kaay na ajug 2024 gii kay làmbatu tëñëx tëñëxi moom la ci kilifa yi nekkee ba tax fi mu toll nii ñaar fukki millions ñu ngi koy ñàkk bët bu set ujaaj yoo xam ne ña nga ci ay jafe-jafe ndax gis yi jeex yéen a kaay bi ne waaye service yi muy liggéey ñoom talaata lañ wax na la jafe-jafe yi jeex a kaay na jafe-jafe yi ji ñu dénk wàllu El Malick setal wecc président Diomaye fay ak Sonko kilifa yu bees yi ndax jafe-jafe yi Air Sénégal nekkee ci jamonoy président Macky Sall la leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne suñu waxantee dëgg président Diomaye Faye ak njiiti jëwriñ ni Ousmane Sonko képp ku taxaw di xayma naan fa ñoo tële jox nañ leen réew mi waaye defuñ fi dara la ñu waxoon nii ak naa di leen critiquer ak a ñaawlu seen doxalin képp ku ko def rek ne la wër na fa ngaa juum ndax lii dëgg mooy réew moo xam ne fukki at ak ñaar Macky Sall ak ñim àndaloon yor ko yow ñu nga ñëw ñu jox la ko xamagoo sax ñetti ñu lay critiquer loolu du yoon lii dëgg mooy may temps suñ demee lu yàgg nag ñu doon di leen xayma waaye léegi fa teel du samay kàddu nag professeur Mamadou Diouf di jàngale sa université ci réewum Amérique moo ko wax ci Sud Quotidien la mu ñu wax moom info yéene kaay mooy jëwriñ ji ñu dénk wàllu njàng mu kaay mi fa jël juróom-ñaari dogal lépp ngir fexe ba calendrier bi jëm ci wàllu université yi tegu ci xanam gu jaar yoon l'observateur moom fa ñoo xamal ne téeméer ak fanweeru passeport diplomatique a nar a dakkal njiitu a ak Karim Wade yaaw seetal Waré Sarr fa wax ne Ablaye Wade dàqut ko wàccewut ko postom ba de déedéet waaye gars yi fa ñoo jël ab Ablaye wadd bi toppandoo ko te Karim Wade lu ji njaaga mooy njaag ma ngi ko waxee ca l'Observateur la mu wax moom Dudu Wade mooy ne Ablaye Wade fi mu toll nii mënatut a jiite PDS ma ko waxee ca la quotidien ba tey fa waxaat moom Dudu Wade ci lii yéene kaay ne Ousmane Sonko njiitu jëwri ni fa war a nangu nekk ci ron kilifteefu Jomaay Fay ndax mooy président gàttal ña defati lu rafet mooy douane bu Sénégal fa ñoo jàppati drogue bu bon bi ñuy mëq ko fóon bu garaaw bi fanweeri kilo yu toll ci ay milliards ca kër ayib la ko douane ba jàppee révélation yéen kaay moo ñu ko xamal tàggat yaram Real Madrid xanaa léegi nag yéen ñëpp war ngeen a d'accord ne dëgg-dëgg Real mooy équipe bu mag a mag a mag bi xamu fi moroom xay ndaanaan la ñu moo mën gaañe moo ëpp doole keroog samedi Real daal fa jàpp Dortmund di ko mbuqi di ko mbuqi di ko mbuqi di ko mbuqi fa ko mbuqi ba muy bëgg a dee ñaari bal ci dara deux zéro tak carax-carax bi mel ni taw premier mi-temps Dortmund xaw tuut mu ray Real fekkee dëgg rek la wax occasion yu bëri ay poteau lu ma la mënta wax Real na ko waa ah, baax na xaara ba deuxième mi-temps faa lay wan ne man faa mën bës expérience nax la dóor la jël coupe bi te waxoon naa leen ko de ne leen Real fa koy mbuqi supporters yi bu leen seetaan match bi xol bu jeex rek de fukkeel bi yoon nag ak juróom Real jël na ko Ligue des champions mu yéeme mbir mu yaaw seetal fa xam benn waaye boo xam ne fa xam aawo dem gis beneen jigéen bëgganteek moom yónnee ay mbokkam ñu dem may ko ko comme jabar yéene kaay bi ne li ci garaaw nag fañ koo takkal ndaw sa ndekete yoo ndaw su ñu ko takkal jabaru jàmbur la am na jëkkër aay yëf yaa nga amee ca jàmm gën si kaab mbaaw waa ji nag boutique la xam di jaay hmm, waa ma ne léena da xam naa ko mooy imaam ya mayee ndaw sa moom xam ñu woon na am na jëkkër waaye léegi nu ñuy def kan mooy ñàkk ci charia de boutique bi moo war a ñàkk waaye ndaw sa tamit a a tëj sa boutique bi de ndaw si daal bu la fa fekkee na sama jabar man faa xamul koy tontu. asalaamaaleykum mbokk yi dal leen ak jàmm ci seen institut international ICFA professeur Mouhamed Sakho ak équipe bu xarañ bi mu àndal leen dong moo leen tax a jóg fexe ba noo leen di jote ci njàngale alquran al karim